Dieynaba taal daa dee Dieynaba taal deewul ëmb bi na yàqu am du yàqu da nga cee bëgg xam dara seetaanal vidéo ba mu jeex tàkk pour yéen yi nga xam ne yéen bëgg bokk ci groupe Bété Bété contacté leen ci numéro téléphone bii ngeen gis ñu dem seetaan vidéo bi te ñëwaat. effectivement Dieynaba ñëpp xam nañ ni bal bi dalu ko non bal bi dalu ko bal bi ci kaw lañ ko tiiree Dieynaba il fallait que mu daanu noonu yee yeeg ëpp doole xam nga rek jigéenu wérul lu la xamloo day yomb. surtout bu ak affaire yi mu def sànq di activité bi daw yuuxu ak tiitaangey affaire yooyu mais daal papa Ndiaga Thiam mer na xaw ma nag juma Thiam nu mu ko taxaw foofu mais mer na ndax nee na ko yaakaaroon naa ku nekk mooy réagir nii waaye doom sa doom mi gaño waaw ñàkkul nu ko juma Thiam taxawoo foofu nan daal mais gis na ci boppam mais macha allah épisode bi moom dina neex daal maanaam ku meroon ca bële am nañ yaakaar ni di nga kontaan nuyu naa ñëpp ziar leen bu baax ñëpp ñëpp nag ku déggul sa tur ku ne rek nuyu naa la. coono li muy bëri bëri lépp maanaam annonce spéciale lu ngeen ko Soumboulou am na fu mu yéegee ci kaw mu naan yaay ji man awma dara man yaay rek laa am est ce que xam ngeen tax mu jóg saa lu mu fa wax loolu bi leen analyse bi bu baax affaire bi ak ji bi lu bari dina ci feeñ ak ji lu bari dina ci feeñ waaw ndax sànneex ak sumbu c'est la première fois ñu ngi soog gisee te ñëpp ñu ngi naan tiire nañ Dieynaba tiire nañ Dieynaba bal bi xaaju ba daw Dieynaba ci kaw ko tiire li mu ëmb moo tax mu tiit soo xoolee commencement bi bi paa bi ne Sanex ne ne woon naa leen lii bi amul bal léegi bal baa ngi nii Dieynaba rek dafa daal dëkk kon ngeen xam ne affaire bi am na lu ci nekk. ëmb bi sax moom gëmuma mu dëñ ndax ni mu daanoo daanu jaaxaan la daanoo gëmuma mu dëñ daal. waaw ndax bu il faut ëmb bi taxaw ndax Marème la xam li mu doon bañ lépp dëgg la waaw ndax ëmb bi rek moo mën a def film moo mën a may film bi sens ndax bëgguma doomu berkele il faut mu am sëtu berkele waaw foog gëmuma de ëmb bi daa tuuru na. ëmb bi day dañ soxna ëmb bi day dañ de waaw ëmb bi day day dañ ko yëkkatee yaa may dégg bu baax ci la jëkkëram di xam ne jabaram kon dafa ëmb ëmb bi day dañ de yaakaaruma mu yàqu yaakaaruma mu tuuru de ah yàlla mun na kaa jàppale mu bañ a tuuru ndax Dieynaba Tall moom man de si sama gis-gis moom daa war a am doom ndax yàlla meram meram sal changé tuuti ndax loo beñ beñ beñ nga ne sa deret du rax nga dem ba sa deret rax te Amina ngi côté bee xamoo moom tamit lan la lay indal bu yàggee nga nangu ah yaakaaruma mu yàq ko de. xam nga lu tax ma wax la am ënd ëmb bi waru yàq mun na yàq mun na bañ a yàqu xam nga bu yàqoo lion bi day am ndam lion bi ci kër gi day am ndam ndax moom moo ne bëggul du du mës a am sëtu berkelle te doom ji dafa war a judd mooy waral sëy bi mën a réparé waat te bu doom bi juddu sëy bi day tas dafiy doxe tas par force ndax jay na ba taal du delluwaat fee gaw ko de. Dieynaba Tall du delluwaat de ndax lii am famille bi ñëpp daje fa ba yaay Dieynaba Tall dem ci kër ga ndax leen ma ne Dieynaba taal dafa daanu xam ñu téye ko ca kër ga ndax gis nga yaayam bi mu génnee di dem yaayam dafa dem ca kër ga dem na ca kër ga te bi muy génn di dem euh, kii ma xujja ngi naan kee magu ma xujja bi ñu ngi waxante mu naan kii warul yëg am na lu mu war a yëg mais waragu koo yëg moo tax ma xalaat ni dafa xëm ñu tëral ko ci biir néegam et cetera affaire yooyu lépp a ngi ci ndax dañoo juutal affaire bi li war a jiitu moom la ñu def nii li war a nekk ci suuf ñu teg ko ci diggante bi bu ko defee boo deful attention rek da ngay tegi ni loolu la te fekk na affaire yi demeewul noonu mun na dem mun na bañ a dem nag effectivement mais daal doy na waar maam bu am na lu ko metti moom man moom rek foofu rek laay xalaatee am na lu ko metti nii xam nga ni naan nit bala laa respecté il faut que mu gis sa vrai visage dëgg la du question xuloo du saaga du dóor du yëkkante lu ñaaw boo jàkkaarloo moom ne ko jàkk wax ko sa ñetti dëgg muy hésité ak di ñàkkal xorom di defe ni yow xamoo li wala amoo fit bi gis nga ni yàlla di def maanaam yàlla dafa def boole ñii am importance ci série bi yëpp la boole Kër Njaga Caam tey ci épisode bi ñii am importance ci série bi yëpp la fa boole xam nga gisoo fa borom rasta gisoo fa rakk ami mbay gisoo fa ami mbay gisoo fa ñoom bojo bojo ay facha affaire yooyu extra ñi am importance ci série bi gis nga ñoom ñëpp a daje Kër Njaga Caam moo lay wan ni ñoom lépp lu ñuy def dañ ko xam bu ko defee liy am du nëbbu maanaam kenn du ko nettali kenn ñëpp ci teg seen bët affaire bi noonu la demee tey nag mooy série bi war a am suba noonu la demee loolu mooy problème bi. groupe bi nag am ndax fan yii passé dégg naa fi ko naan njëgataam day sóob rek du tiré def dara a tiré pour mu am sens c'est pour si am sens foog mu tiré foog mu dal baax na mais na dóor ñu xam ne dóor na yàq naa ko sama vocal yu mujj yi bu ngeen xoolee avant bande annonce bi génn leen dafa war a tiré benn waaye dugg naan dafa war a tiré du tee day soob rek day soob xaabar xaabaram ji nangam nangam damay bañ wàcce fokaaram di ko yóbbu vaar waaye kon wallahi groupe bi dina bëri ñoo xam ne vaar laa leen jëmee vaar. effectivement mais xam am na ñoo xam ne boo waxee ñu ne théâtre la ku ne dangay joxe sa xalaat dëgg la ku ne da ngay joxe sa xalaat mais ku ci nekk booy joxe sa xalaat danga war a jàngat togg sa xalaat jàngataat xool li ngay wax bala nga koo wax ndax ñun ñu fiy wax yépp ku nekk sa xalaat ngay wax mais dafa am loo xam ne dafa logique dafa am loo xam ne xel nangu na ko am loo xam ne xel nanguwu ko nañ waxante dëgg am na loo xam ne xam nga waa koy ci gàttal imaginel tey bu tey bii rek xam nga dañ leen leer ni ñun gisuñu ko fekkewuñ bañ koy jiwee mais ñun ñëpp mangoo mànkoo ni jénn ba taal bal bi laalu ko mais xoolal yooyu xel yu yu yu yu normal xoolal yooyu déggoo maanaam dañoo déggoo ci ay kàddu te pourtant kenn kenn fekkewul bi koy joué kenn euh, fekkewul bi ñuy bindu séquence mais ñun ñëpp a ci benn kàddu bi ne jénn ba bal bi laalu ko dëgg la ñun ñëpp mënuñu mànkoo ci ne Ndiaga Thiam du dem mais dafa am loo xam ne dafa logique dafa normal te dafa correct dafa am loo xam ne dafa incorrect wax nee nañ bu dofee tamit nopp yoo koy déglu war a wér n'est-ce pas noonu la olof wax affaire yi noon la rek loolu la demee mais am na yenn yoo xam ne nit ki da koy wax moom mi koy wax sax da koy leer ni lii gëmu ko xam nga li gi gën a bon mooy ngay wax li ngay xam ne gëmoo ko mais dalay leer ni njaga caam keroog for force day dem dem ci kër ga loolu force la woon ci série bi ci épisode boobu force la il fallait dem ndax gis nga li yàlla di def dafa dem daje fa ak